boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyi ko sant yàlla bu baax a baax di remercier l' ensemble des conseils yi nga xam ne daje woon nañ tey fii ci salle de délibération ngir wate budget 2023 ci budget bi nag comme ni ñu ko ni ni professeur Ndiamé Ndiaye liire rapport bi ci euh, li nga xam ne moom lañ ne ma def ci kàllaal ma nasaraan euh, professeur Bassirou Lo Anta Diop liiru ko ci tekki ko ci wolof noonu rek laay defe yàlla dafa dogal comme li ma wax ñun on a des problème ci infrastructure publique ku nekk xam na Touba ni muy doxe euh, ci li ñu namm ren rek damay jox benn exemple ci euh, buñ demee ci salle de classe wala ñu dem ci euh, ci ci ci ci éducation buñ ci demee wala ñu dem ci poste de santé xam nga nëgën si daaw ñoo ngi toogoon fii di wat di def orientation budgétaire bi ñuy wate budget on est à abri abris ci commune Touba ci 30 euh, école publiques yi nga xam ne moo nekk ci commune Touba biñ ko defee bi ñuy wat bi ñuy mm, defar suñu budget ñu jël 20 salles de classe def ko ci budget bi en construction mais salle de classe yi tabax nañ ko mu desoon 23 salle de classe abri provisoire ñu ne ren dañ koy jël ci 2023 dañuy jël loolu pour am zéro abri provisoire mais malheureusement ci ni dëkk bi yokkoo ak ni muy demee ka 23 yooyu ñu amoon ba bëggoon a atteindre suñu objectif ci abri provisoire ren bi ñu ak inspecteur départemental bi ñu def orientation bi ci fii on est 70 salles de classe abri provisoire loolu nag dafa indi jafe-jafe ci ci jàngam dafa indil jafe-jafe xale yi nga xam ne ñoo war a dugg école loolu moo tax ren ñu jëlaat encore trente salle de classe à construction année ñu prévoir ko ci deux mille vingt trois boole ko ak li nga xam ne moom la état bi di joxe ci salle de classe yi di dafay wane ne rek Touba ci population bi ni muy màgge infrastructure yi jiitu nañu te pour ñu dab ko c'est un problème loolu moo tax nag ma di ci waxtaan ak sëriñ bi di ci waxtaan ak conseil municipal yi di ci waxtaan ak état bi di leen jox table de bord ñu xam ne fii la ñu nekk ci déficit infrastructure publique malgré que effort yi ñuy def ndax benn at nga am 43 abri provisoire li nga amoon daaw nga xam ne moom la ñu amoon lépp ren rek 43 la ñu am loolu boo demee ci poste de santé yi kasaalika noonu moo tax euh, commune bi tabax na 20 salles de classe euh, ci 2020 de tabax na sept postes de santé ci 2022 mais aussi mi ngi progressé mi ngi fas yéene aussi tabaxaat lu bare bare bari ci salle de classe ci ak poste de santé ci ci infrastructure publique moo tax may leeral conseil municipal bi ci commune bi mi ngi def effort yi man yëpp état bi mi ngi def effort yi man yëpp mais dëkk bi ni muy doxee donc il faut ñu bàyyi ko xel ci commune bi bàyyi ko xel mais état bi bàyyi ko xel mais aussi ñu leeral sëriñ bi ne ko fii doxin wi nii lay toll ndax loo loo xamul ni muy doxee boo wutul kar ko dana la jafe donc looloo tax infrastructure publique yi moom war nañ cee taxawaat bu baax a baax ci wàllu yëpp nag muy ci wàllu njàng muy ci wàllu faju muy ci wàllu eh, muy ci assainissement muy ci leneen muy ci leneen. waaw loolu euh, xam nga état civil Touba commune bi ñoo ngi délivrer cinq cent à six cent actes par jour loolu nag daf ñuy wan mooy li may wax ci ci ci problème bi li xew ci école yi loolu moo xew ci état civil parce que actuellement ñun ñu ngi def mille deux cent récidives par an récidive bu ne mi ngi nekk cinquante personnes loolu boo ko xoolee ci ci ci xayma rek Touba lu mu néew néew ñu am cent naissances par par année donc cent naissances par année boo demee dix ans rek da ngay am dix dangay ngay am un million de naissances sa population day dolli ko ci loolu ak leneen ak ñi nga xam ne dañuy jóge ci yeneen dëkk di ñëw ci dëkk bi loolu nag moo tax ci suñu état civil ñu jëlaat ci yeneen façon ba ko informatiser def nañ ko informatiser nañ lépp donc ma ñaanoon euh, ministère de collectivité locale mu boole ma ak directeur de état civil indil na ma 40 personnes yoo xam ne def nañ fi un mois ci tey ci numériser lépp loo xam ne kayit bu la bu fi nekkoon ci diggante 1976 bi ñu créé collectivité locale ak communauté rurale yi ak tey jii. kër mu mu ngir que ñu mën ko informatiser ngir mu mën a jàppandal nit ñi nga xam ne dañuy soxla seen i kayit bu ñëwatee duñ fi yàgg dootu ñu leen jox délai ndax da ngay ñëw rek a di minutes ñu mën laa génneel sa kayit nga mën a dem. loolu aussi ñu ngi ciy remercier président tribunal bi parce que ñoo moom ñoo ko ànd dem démb directeur état civil ñëw na fii di ñu seet si ci liggéey bi di rafet lu liggéey bi loolu aussi ñu moo tax ñu war a anticiper lu bare bare bare bari ci état civil ci année 2023 bi rapport am ngir li waaw loolu mooy li ma wax li ñu soxla ci ci li ñu ci ay poste de santé li ñu soxla ci ay salle de classe li ñu soxla ci ay infrastructure islamique donc li ñu soxla ci ay ay infrastructure publique li nga xam ne suñu euh, mission culture yi soxla nañ ko donc loolu yëpp dafay dafay lu bare bare loolu nag li wolof di wax ndimbal na ci fekk loxol borom naa ñi ngi am jot sell VA bi ñi ngi jot fonds de concours ñi ngi jot fonds de dotation ñi ngi jot euh, appui PACASEN bi donc loolu yëpp ñu ngi ko jot waaye commune Touba nag dëkk Touba bi dafa war a am loo xam ne ndimbal na ci fekk loxol borom dañu ko war mën a recouvrer ci dëkk bi maanaam boole ko ak loolu ñuy am ngir mën koo def li nga xam ne moom la askan wi soxla ci ay tali ci ay école ci ay fajukaay ci ay éclairage bi loolu nag tax na moo tax ma may ñaax président commission finance ak l'ensemble des membre de commission bi ñu ànd ak trésor public pour mën a budget bii nga xam ne wate nañ ko ñu jox leen ko ñu mën koo recouvrer pour ñu mën a taxaw ci infrastructure yi pour mën a dabu yittey askan merci boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo